bi lampe bi lampe bi ka ci sama bopp. ñëw rek ñu daj seen bagage yi est-ce que waxoon nañ leen dañ fiy ñëw. déedéet kenn wax ñu dañuy ñëw. yéen da ngeen ñëw rek da ngeen bari doole kam moom ngeen ñëw ngeen bon seen doole mais amul benn problème. non yàqu na de bagage yi yëpp lu ñuy yàqul li nga xam ne ma ñëw bett la ku ñëw la bett la xam ne day yàq wala xam na ko non man ministère lay liggéey am na li lal bi sax dañ ko épousé li lal jaabur la pare wuñu sax ah policier yi nee ne dafa wax ak man mais kenn waxu woon ak man avant léegi léegi sax dama bëggoon génne bagage bi nee ne duma duma laal sama bagage sama benn problème ah pexe bi yàlla moo ko yore man xaw benn pexe lu may def waaw nee na def ma wax nee na léegi yii bu nekk côté bii nii mais côté bale yàq nañ ko nee bu nekk côté bii nii suba bu ñëwee dañu koy jël ah, ah lu ko yàqale ka moom calculé wu ma ko bisee ci guddi bii nii xaw ma lan ak lan moo yàq xaw ma lan lan moo yàq mais ci guddi bi la nekk bu fekkoon ci bëccëg ma xam lii ak lii laa posé woon fii wala lii ak lii laa posé mais xaw ma lan moo lan ak lan moo yàq fii nii ah, gouvernement lu ma lu ma koy wax ci gouvernement gouvernement ka moo moo am doole lu mu buggay moo moom moo koy def yàlla moo koy teg xam nga bu yàlla dindee rek dañ tànk yàlla dindiwul kenn mënutul dara